amis téléspectateurs c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve sur Equivox TV mbokk yi ñoo ngi am mbégte di jàkkaarloowaat ak yéen ñu ngi ak ki nga xamante ne moom mooy Babacar ñu xam ko ci làmb ji mu nekk koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci milieu làmb hmm, quelqu'un de respectable Babacar moom laa toogal tey euh, Babacar xaw ma daf maa bett xaw ma nu mu demee noonu xaar mu nuyu ko ba pare mbokk yi Babacar maa ngi lay ziar. Eh, Cheikh Omar maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre Equivox TV yëpp fu ñu mën a nekk sa àddina bi di la ñaanal jàmm di ko sàqu si yow di ko ñaanal ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñu suivre di nuyu sa caméraman bi hélas di nuyu képp nga xam ne daal mu ngi ñu suivre ci Equivox TV. Babacar ñu xëy tey dégg ni Babacar rejoindre na groupe Equivox rawatina Equivox TV bii nga confirmer ni loolu. waaw loolu moom ça fait plaisir ah xam nga. loolu moom bu ñu ko déggee rek dèjà lu am la parce que li tax mooy xam nga ñun ci milieu lañ nekk di nuyu waa làmb tamit en même temps parce que xëy na Babacar buñ ko xamee ci làmb lañ ko xamee. la ko at àddina bi yëpp xam ci wàllu mu ciy liggéey xam nga tey kon defe naa du ñu mën a def lu dul nuyu tamit waa làmb mais nuyu tamit suñu sopp yëpp ak fu ñu mën a ne si àddina bi nuyu tamit ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suma waa dëkk parce que nit ku ne am na foo dëkk comme li ma koy waxee rek. te waykat bu Youssou noonu na li nga doon soo ko bañ dafa fekk nga gën cee ñaaw ñun yàlla dafa def ñu di ay kaw kaw di doomu bawal muy nuyu waa bawal yëpp mais Sénégal yëpp maa ngi nuyu rawatina village bi nga xam ne fa fekk baax baax fekk ma ko muy ak yaay nekk si commune Ndondol département de Bambey maa ngi nuyu commune bi yëpp rawatina sama xarit le maire maître Pape président comité sénégalais des droits de l'homme maa nuyu mais noonu nga ko waxee daal noonu la demee quoi te itam plaisir la pour ñëw liggéey parce que liggéey moom dañ fi nekk pour liggéey kon yooyu nag su amee dèjà bu leen sollicité ci liggéey nga jàpp ne war ngeen a mën a liggéey pourquoi pas nga dem rejoindre ko ngeen liggéey loolu la rek quoi. oui arrivé bi Equivox nu mu demee da nga gis ni projet la boo xamante ne war nga koo mën a accompagner da nga gis nii lan moo la incité wala lan moo la jox. courage ba nga rejoindre Equivox. waaw parce que Equivox macha allah ñu ngi ci milieu làmb yow nga yore ko di ko doxalee ak Cheikh Omar parce que nit ki la gis ba doy loola yaakaar la jàpp ne li muy def war nga ko ci mën a pousser defe naa loolu defe naa ak ak ant la ndax itam xëy na bu yaafus amoon wala nangam xëy na kon du demee noonu. te depuis boobu ba tey mën naa ne quelques mois ah ñu ngi bëgg Babacar ñëw liggéey ak ñoom mais nag jamono bi ko yàlla dogalee rek ci lay mën a sottee quoi mais wax dëgg yàlla tamit liñ ma wan ci wax ma ko si wan ma ko ma gis ko ak itam si ay lu nga xam ne nii ambition la ak parce que ambition mën ta passé tey rek nga taxawal kër gu mel ni Equivox benn muy yëngatu muy mbiru média ñu ne déet ne waaye nga xeet di ci boole nag di def production man tëgg ay làmb defe naa kon kooku dèjà am na lu mu bëgg a contribuer pour ci développement Sénégal ba pare ñu nekk ay jeunes parce que yaakaar naa loolu nag su la koy nit wanee bëgg nga ñëw bokk ci loolu te itam yow la nga soxla mooy lu jëmale Sénégal ci kanam defe naa dafay baax boo sentiree war nga fa mën a dem rek nga ñëw liggéey quoi. am na solo alors ñu gis nii Equivox taxawal na effectivement euh, benn projet wala ay projet yu bëri la Equivox am alors ci wàllum làmb ji nan nga gisee euh, projet yooyu noonu. lan nga yaakaar ni Babacar fe comme ni nga ko waxee ñu ngi ci ba ba léegi war na ko cee yokku pour mu gën a jëm kanam. parce que yokk bi moom leen la rek man dama naan su ma fi ñëwee dañ damay damay ñëw ñaan yàlla pour yokk fi dara mm-hmm. mais ñoom it dama ñaan yàlla ñu yokkal ma dara. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. parce que olof na ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee te tey xëy na boo jaaree fii di fu foo jaar rek dina am benn expérience boo fa jëlee te expérience ak xam-xam du doy ci àddina. yaa ngi dégg la ngay dund fële ak li ngay dundu fi li nga dundoon fee ak li ngay dundaat fii expérience yi du doon benn kon defe naa ne yokkalante lay doon man nag ci bu dee lu ma leen di yokkal mooy yaakaar naa tey fexe ba Equivox ci côté làmb tamit mu bokk ci ñi nga xam ne nii Sénégal ah dañ leen di dañ koy compter ci li nga xam ne fu ñuy xaar làmb la fu ñuy seetaan làmb la fu ñuy dégloo làmb la loolu nag li koy indi mooy liggéey. alors danañ leen indil ay émissions yu ama am solo Babacar di ngeen ko gis ci beneen facette. di ngeen gis Babacar ci wàllum làmb mu gën a yokk mais di ngeen gis Cheikh Omar Babacar di ngeen gis keneen incha allah koo xamante ne di ko gis mbere mbese la du ma tudd turam mais Equivox daal mbokk yi attentes yi nga xamante ne am ngeen ko ci moom incha allahu bi lépp loo xamante ne soxla ngeen ko danañ leen koy jox nu mu gën a yaatoo danañ nekk Sénégal danañ nekk bitim réew bu soobee yàlla danañ nekk un peu pour xool lu leen di bëggal mbokk yi ñu jëm ci loolu ñëw comme ni ñu ko waxee sànq Vox Arena di label bi nga xamante ni mi taxawal euh, làmb yi euh, taxawal na ay combat yu ama am solo ñu fas yéene def benn gala ñu tuddee ko fay euh, gala cinq drapeaux ci benn tàkkusaan ñu fas yéene cee boole Tyson 2 Franc Mama Lamine Garga 2 gis nga barki démb finaliser nañu combat bi dem ci alliance ak ki nga xam. alliance biram ak ki nga xamante ne moom mooy euh, caatu ngéwél nan nga gisee euh, euh, projet boobu. dèjà ñetti affice yooyu rek mm, koo ko tegal amateurs yi seen wàllu bopp dañ ko dèjà nangu parce que li tax ma ma wax loolu mooy maa ngi ci mili bi yaa ngi bi ñu ngi ci dëkk bi yaa ngi dégg combat boo fi teg rek amateurs yi dèjà ñoom bu ñu ko gisee rek dañ xam daal lii combat bu jaadu wala jaaduwul bu ñu ci Tyson 2 ak Franc defe loolu. Franc ku ne gis na depuis mu duggee ci làmb lutte avec frappe ba tey mbër daanagu ko macha allah muy xale bu bëgg li muy def am si fula ak fayda lool lutte simple bi tamit moo ne ci boppam bu baax a baax a baax defe naa ne kon tey ba gis nañ fi mu mujj ak bébé Saloum muy mbër mu mag di xale boo xam ne ñu ngi koy séntu ëllëg ci futur champion yi te làmb bu fekkente ne yoon bi mu tege mu ci tege continuer di liggéey ñu ne Tyson 2 Tyson 2 nekk mbër moo xam ne nii liet naawu Mouhamed Ndao Tyson liet naawu Eumeu Sène yaru ci keppaar yooyu jàng lu baree baree bari ci ñoom ba tey dama naan dinañ ko jox adversaire ñu foog ne adversaire baa ko mën fekk na bu arbitre soufflé la ñuy gis ak lay lay am du doon benn mm-hmm. la preuve wane na ko combat am ak góor a soog yaa ngi dégg mm-hmm. muy làmb muy adversaire boo xam tamit vraiment ku néewi defet la ci làmb moom Tyson 2 mën a bëree lool mën a xeex lool mm-hmm. muy combat boo xam ne dèjà boobu bañ ko tuddee rek amateur yi dañ ne lii fan la nekkoon ak nu mu mën a nekk mais Equivox su def ay ay ay génn ay moyens def la tout pour taxawal ko muy combat boo xam ne combat amateur la ba tey parce que combat bi yu amateur yi la ñu ne déet ne waaye ñu indiwaat Mama Lamine ak Garga yaa ngi dégg muy combat boo xam ne maanaam li ci laxasu dafa bëri ndax li tax mu bëri mooy Siteu Papa ku ne xam ne taxaw na ak Paf production Garga 2 ku ne xam ne dem rejoindre na Papa Sow Jàmbaar Wrestling Academy yaa ngi dégg Mama Lamine nekk lieutenant wu Siteu kon foofu maanaam avant avant avant mooy avant premier wu Siteu Papa Sow moom ngay amaat foofu ndax kële papa koy ngemb kii Siteu moo koy ngemb kon mu nekk loo xam ne ni foofu tamit combat la boo xam ne nag ci côté bëre en tant maanaam dinañ ca gis bëre bu doya doy waar parce que tax mooy Mama Lamine day di bëre mbër buy rañaan la Tyson kii euh, Garga maanaam bëre làqar ci def dindi non mbër bu dangereux la kon Mama Lamine itam am na adversaire de taille waaw ku mën a bëre lay bëreel moom Mama Lamine waaye Garga mbër mu am sañ-sañ lay bëreel mbër mu ñeme fu adversaire am nekk non Maama Lamine kay mooy loolu kon foofu itam da nekk lamb joo xam ne mënoo ne kii moo man te loolu amateur dañ koy soxla si làmb làmb ju am joo xam ne dafay maanaam day day intense day metti xëccoo bi day tar xam nga làmb buñ ne di diwa man à 100 pour cent rek wala moom mën nangam bu bëree rek xëccoo ba dootul tar dootul am tiraillement te làmb dafa war am xëccoo bu tara tara tar loolu nag li koy indi mooy boole ñu ñu war a boole boo boolee lu ànd rek xëccoo bi dina tar nga daal ci indi alliance biram boo xam ne mu ngi bawal mbooloo nekkoon ci benn succès yi doon doxal dama benn maam mu xaw a def benn contre performance mm-hmm. tey soo ko indi mu bëgg a jógaat war am lu mu wanewaat nekk xale boo xam tamit dañ ko yaakaar mu ne ci ginnaaw tafaatin mm-hmm. ak caatu ñëwel boo xam ne ni mu ngi yoof alliance biram nekk xale boo xam ne vraiment ku ne xam ne mën a bëri mm-hmm. làmb nag bëree daanu da cee bokk ak mat sinil sport la séq ko caatu ngéwél boo xam ne nag dafa sonal waa bawal ci li ma wax na xam mbëru xale bawal yi kuñ cëndi daan na la ku ci ñëw rek daan na la mu sonal leen lool lool lool nekk xale boo xam ne ni nga ko gisee noonu ci bindam moom caatu ngéwél ëpp na noonu ci doole ëpp na noonu ci bëre ëpp na noonu ci fit ak xeex ndax ku ne gis na diggante ma fils de Zallo ñëpp dañoon bu ko fils de Zallo jàppee làmb ja jeex mais xelal keroog xeex bu metti ba mu xeex ak moom bëree ba ba daan ko jël bu ko daan combat ba mu taxawee dèjà dama dugg ci groupe whatsapp bi rek gis gars di ko partage ñëpp di ko commentaire ba au international ma ciy nuyu ku mel ni Baara Kañ ndax moom kër dégg naa ko mu wax ci wax boo xam ne ni mu nga Brésil mais pour wan la ne li ngeen taxawal amateurs yi soxla nañ ko. alors am na ay combat yoo xamante ne danañ ko finaliser mbokk yi mais comme euh, dama yiir ki nga xamante ne moom mooy Babacar euh, ci këram Babacar euh, bi ngay jógee Leewtoo nan la demee kër googu nga xamante ne sa kër la ba tey. bien nan la demee. waaw non foofu damay profité di nuyu borom kër gi muy Pape Thialis Faye ak ku mel ni Abdourahmane Diaw tonton Diaw. ñoom sama ay kilifa lañu parce que li tax mooy nekk nañ nekkin bu rafet ah. mm-hmm. parce que man moom comme lu may wax rek ñaan naa yàlla ku may seqal liggéey ba bis bu yàlla def liggéey bay jeex mm-hmm. ñu tàqalikoo si jàmm mm-hmm. pour ëllëg bu ñu dajee ku ne mën a xool sa morom ndax man dund ma tey dund comme jóge naa ci kër ne kër googu dara fi mu ñëw mooy dara non man du ma doxee noonu parce que li tax mooy fa nga jaar am na loo fa gagné comme expérience am na loo fa jàmm joo fa am na relation bu rafet boo fa kon loolu dara tax nga di ko yàq ci ngay ci ci laa lay defee lu la neex nga def ma lu ma naqari ñu jégalante ñu jàll kon ñu seq ñu seqan loo xam ne diggante bu nice la Thialis ma koy ñaanal jàmm di ko ñaanal famim di wax ne vraiment nit ku baax la parce que loolu rek la ma mën mënum wax leneen ci moom loolu laa gis ci moom ak encadrement yi mu àndaloon yëpp ñoom jawak ñoom sédoog ñoom masaar ak et tout ça ñëpp ñëpp mais nekkul loo xam ne lu compliqué la parce que ñëw nañ waxtaan ak moom wax ko li nga xam ne ni daal mooy suñu yëg-yëg mooy dañu bëgg a quitter yaa ngi dégg moom itam indi lu ci benn mettit nangul nañu ko xam nga ñu def ko mu jeex si jàmm quoi parce que olof ne na dul jàmm jàmm ko gën. waaw. alors mbokku yi alors mbokku téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ne moom loolu Babacar wax waaye mbokk yi xam nga lu may def damay jox Babacar micro bi mu tëj émission bi ma génn. Babacar micro merci Cheikh Omar di wax bismillah rek di nuyu ki nga xam tamit ku mel ni Ibrahima Faye Beuz bu Lit TV. waaw moom. yàlla dafa def ci ay loxoom laajaar moom bu ñu ma xamee moo tax te du ma dañ di ko wax wolof ne tax ngay tax boo goro nekk yaa tax may tax te man bés moo tax nit ña xam kan mooy Babacar ñu am relation bu sincère nag Ibrahima fay bés ma am kook ay famem yaayam ba ci papaam bi fu jóge bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ak waa këram yëpp ñuy partage ci lu bare bare bare bare bëri parce que sama ñëw ci fii sax laaj naa ko ci avem mu jox ma ci xalaat te moom lu dul sama ndam ak sama succès bëggu ko te itam li ma gën a intéressé ci ñëw Equivox moom bokk na ci parce que li tax mooy gis naa que ni am na benn liggéey bu waa Equivox war a seq moom may waxaat encore une fois rek ne bés ku seq moom liggéey man Babacar maa lay wax ne bu tegoo ci yoon di ci jëlee ndam parce que xam naa ko bu baax a baax xam naa quelqu'un ki mu doon yaa dégg bi ci des mooy tamit ma gisaat fi yeneen drapeau ku mel yaa ngi dégg kon defe naa ne Equivox li ma boole ak ñoom bëri na yooyu yëpp ay motivation la yoo xam ne nii mooy loolu ak keneen ko xam ne tamit maa ngi koy wax ma spéciale muy Abou mooy loolu moom suma waaye la waaw sam te la bokk moom suma grand la suma lépp la kon di nuyu di di wax ne daal loolu lépp ay motivation la yoo xam ne nii ak itam pare pour liggéey pare ngir yokk beneen expérience boo xam ne xëy na amuñu woon ko ñaan yàlla ñu ñëw ñu yokkal la ñu ko fii ñu liggéey affaire yi dox loolu daal la Cheikh di nuyu képp koo xam ne yaa ngi may suivre rawatina nag fans club parce que am nañ am na ay fans club ay groupe WhatsApp yoo xam ne Babacar la ñuy bëgge ñoom ñëpp du ma leen fàtte fans club Babacar ñoom Pape Ndiaye ñoom Jiga ñoom Grand Lay Cédric Marcelin Ndour ñoom Baye Zal Paris ah Mame Gour Diazaka ñoom sama gars yi waa Sowali ñoom Saliou Sarr Insan Seydi gars yëpp Mass Ndiaye su ma limee su ma limee dinaa juum David Luiz depuis Espagne ñoom ñëpp ci fans club Babacar lañ bokk bu ma limee damay juum bëri nañu mënu ma leen lim ñoom ñëpp ah. ak waa waa Bitenti ñoom tamit ay soppe Babacar lañu ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee di nuyu beneen fans club bi nga xam ne ñoom Cissé ñoo fa nekk ñoom Fat Dia rakku Bombardier ñoom Arona Camara ñoom gaa yëpp awa jub Touba ñoom ñëpp ay soppe la ñoo xam ne ni lépp lu Babacar di def ñu ngi ciy jàpp di ma dooleel fu ma ne ñu fekk ma fa kon du ma leen fàtte Asi Diagne noo ak sut moom ci la bokk sama soppe sama xarit la Amina ñi ngi bu kaayam bi xarañ moo ñu boole ma tamit sama waay la maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi siifir Khadiros Ndiaye ca Allemagne moom tamit sama jigéen la tuuti yaay Sarr moom tamit noonu la mel lépp lu may def rek mu ngi ciy jàpp maa ngi koy bégee di nuyu borom këram Assane Sarr di nuyu daal at sama xarit yi nag sama ami d'enfance yi ku mel ni mbay Ngom mm-hmm. sama xarit la di chauffeur taxi Abdou Aziz Ndiaye di jaaykat nekk fa nga xam mooy salle de vente ñooñu ay ami d'enfance bu Babacar lañu ñooñu ñooy sama ay xarit maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di tàllal Sénégal yi loxo rek ngir ñu ñaanal ñu ngir li tax ñu ñëw fii ñu fekk fi lu ko ëpp loolu la ñuy ñaan yàlla ndax ñu man fee def li ñuy xaare parce que défilé boo xam ne war nañ ko relever yaa ngi dégg di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi bàyyi Babacar xel wala li Babacar di def neex la su ma limee dinaa juum ñoom Ndongo Fall ñoom Serigne Ndiour ñoom ñëpp su ma limee dinaa juum dafa bëri gars yi waaw xam naa dinañ amaat yeneen kii quoi mais tamit di beral nuyoo kenn sama seex Sénégal xam nañ ko lamin Seck <laughs> kooku kenn du non kooku kenn du moom ci man non léegi rek kooku moom maak moom xam nga suba ak ngoon la quoi non léegi léegi nen nen non léegi dinaa man maa koy Lamine soxnaam maa koy takki léegi ñu takk lamin maa ngi nuyu borom Thiès di ko wax moom tamit lenn laa si wax sama diggante moom li ñu boole mm. Lamine lenn ma booleek moom dañu xamante avant may yor micro wala muy yor micro xamante ci milieu làmb mm-hmm. relation bu yàggee rek am na lu ko laal relation bi dëgër rafet mu nekk xale boo xam ne dëggu na sérieux na sérieux mag dëggoom sax tax na ñu bëri dafa naqari deret wala sax ñu naan sax niñ ma jégal ci kar bi dafa réew te fekk na du loolu mais nit ki dafa boo jubee di jubal doo xam nga say wax mooy loolu da wax li fa ne rek pare ci loolu moo ñu boole muy xale boo xam ne bu ma respecté la ñuy seq lu lu nekk maak moom muy koo xam ne daal maa yu bëree bëri di rafetlu liggéey bi muy liggéey fa nga ne moom mooy yi nga ne fa laa jaar sama jigéen yi ma seqalan liggéey ñoom nday Kumba Fall ay sa fay ñoom tam duma leen fàtte parce que partagé nañ ay moment yu ama am solo di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm kër gi tamit di ñu ko sañ yàlla na leen yàlla defal succès ci li ñu def équipe seen CNC bu bees bi ñoondil tamit yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu def fi lu raw li fi alin saar defoon pour muy lan succès wu làmb succès wu réew mi parce tamit Sénégal loolu rek moo fi am ñu seq jàmm bokk ndey bokk bàyyi rafet quoi